parce que respecté wuñ geste barrière yi est ce que xam ngeen ne yàgg yéen ak waa APR rek seen meeting yooyu bu corona bi yéegee fan yi yéen a. waaw xanaa da bëgg a waa APR yi waa APR yi ñoom hmm. ñoo meeting ñoo xam xam nga xam nga xam nga meeting xam nga man làmb ji bañ naa ko ba benn ONG action bu docteur Ndiaye Daouda Ndiaye moo ñëw indi 10 000 taxaw ci bunt yi te avant mu koy avant mu koy déclaré indi dama ne woon te nit ñi ñun ñoo mën a faj suñu bopp. masque cent franc lay jar nit ku ne war nga mën a am ñaari masque def benn bi sa poche amee sa butéelu gelu deux cent franc mais lépp lu taxaw rek nga ni na ma nan ma ko jox nan ma ko jox du le président Macky Sall mooy ñëw di solal nit ñi masque ak moom man naa joxe conseil mën naa joxe instruction mën naa sensibiliser suñu wuti vaccin jotee muy wuti vaccin ñëw indil ñu mais am na loo xam ne nag ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp te teewul keroog Daouda Ndiaye docteur Daouda Ndiaye ma koy remercier au passage d'ailleurs ñëw na indi yooyu yëpp teg nit ñi nag nit ñi nag ñun euh, stade bi vingt mille places. Euh, vingt mille places lay def deux mille. ñun a fabriqué dix mille billets. mais nit ñi même ba may tëgg Demba Diop di tëgg Léopold Senghor samay billets daawul jeex nit ñi doo xam sax fu ñuy jaar. loolu koo koy jiñ ñi ñi lay ñi lay ànd ñi ànd ak yow ci organisation bi non non nit ñi doo xam fu ñuy jaar du question jiñ làmba mel noonu buñ ca football ba sport a mel noonu. bàyyi sa mbokk mu jàll te du fay ak. ñoom waaw yooyu yëpp mën naam mais làmb jële foofu li ma wóor mooy ña fa nekk ñëpp fayuñu. kon nag a perte nii. man. Hmm. non non non perte du ma perte du ma parce que nag attends j'avais j'avais des sponsors sponsors yi moom maa ngi leen di. gërëm nga ci am. maa ngi leen di gërëm di leen remercier la ma ci am soobee yàlla doo ko xam. fekkee dan laa dan laa yónni pour nga catu ma doo ma catu heureusement ci bant laa toog di ko laal xam naa ne daal wuyu nan ma seen budget de communication communiqué nañ ci bu bien boole nan ma ci ni ngeen di jaayee sport di ko génne ci seen télé di jaay ba ba ngeen man cee fayu ngeen ci ami salaire ndax yooyu soo amul woon du ngeen fayu ñooñu it jàppale nan ma ci sama lam parce que nit laa ko xam ne man nag attends du ma du ma n'importe qui ci dëkk bi ci rek noobu la laman daan laa du ma n'importe qui ci dëkk bi du ma n'importe qui liggéey leen ma xamee ma xam sama bopp aussi bon waxuma ci geste barrière yi nga xam ni. ne yéen ak waa APR bu corona bi yéegee fan a. APR loolu def jàppalewul Macky Sall parce que ba nu waree jàppale Macky Sall. àndoo ci meeting ak nan ko war a jàppalee mën nañu ko jàppalee neneen. di ko défendre c' est pas nig ba ab Sonko ñëw génn ku ci nekk yi dem di sa dëkk di dajaloo dajale nit ñi di di sóob pour bañ Macky euh, pour Macky Sall kenn du ko mën a nax. bi Sonko yëngalee dëkk bi dañoo dugg seen ñoom ñëpp ñu jóg ñoom ñëpp ñu ko teeloon def kenn du fi ñëwee jóg ak di yëngatu malgré que état d'urgence amoon na nit ñi sonnoon noonu mais suñu ko teeloon def di jege seen population yi dem ci biir population yi di leen jege di wax ak ñoom di leen jàppale ci leen euh, leen yàlla dimbale doo kon du duñu toog fii ni ba problème am ñoom ñëpp ku ci ne tey départ di wuti buzz dajale nit ñi n'importe comment loolu loolu moo dul yoon di ñu dañuy nax le président Macky Sall mais Macky Sall moo ko seetaan tamit non non non mënuñu dëkk nekk ci dëkk boo xam ni nekk ci jamono ji ñuy may ay dajaloo ci ay stat ay politiciens di tëla am na nii nga naa dem di dajalu nit ñi di di jéem a nax président président kenn mënu ko nax nan honnête nan nan loyal ak le président Macky Sall nan liggéey nan jege population yi nan tijji seen téléphone yi koo ci woo ku ci ku ci kalab kalab ba nu fal la directeur wala ñu fal la ministre nga tëj sa téléphone muy sonné wala dootoo nangoo gis kenn doo nangoo jege benn minute ñi faloon Macky Sall doo leen nangoo jege ñi ko wotee loon ñi nga xam ne dañoo yendu ci bureau de vote yi di jàppale Macky Sall di ko woteel ci mënunoo jot ci Macky Sall Macky Sall ñëpp war noo mën a jot ci moom mais dafa ñi ñi nga xam ne ñoom la fal ñoo war a jege population yi le président Abdou dafa amoon ay nit ñoo xam ne xëy na tegoon na leen ci ci yoon jàppale leen ñu nekk ay grand commerçant grand entrepreneur grand transporteur su daan su daan dem ci benn dëkk ñooñu ñooy def lépp su gàmmu amee ñoo ñooy dimbali population yi mais tey fii su gàmmu amee sax su dara amee ci président palais la ñuy dem pour président Macky Sall génne te ñoom ñu ngi seen i yoo xam ni su doon président Macky Sall duñ ko am. ñoom ñu denc ko ci mais dama dama fort bay nag ne.